la siyaar waaw maa ngi lay nuyu di la delloo siyaar bu baax a baax a baax a baax di nuyu ñi fi teew ñëpp ñëpp nag di nuyu mboolem ñi ñuy seetaan tamit di kontaan ci teewaay bu baax a baax. waaw noo gisee li nga xamante ne tey mooy raaya musique bi ñu ko faral doon def sax at at bi passé nag yàlla def ne pandémie bi ñëw ci ba mënuñu ko woon def yàlla dogal ñu sélectionné si ba njiit nga ci am. waaw sant yàlla bu baax a baax a baax ndax sant yàlla nag weesuwul nga nekk ak say morom ci benn mbir di ci liggéey yàlla dogal ñu boole la ci nominé bokk ci rek dafa neex ci xol waaye ab soññe la rek ci ñun ndax nag ndaw moom boo nekkee ci yoon di liggéey benn mbir lu ñu boole la ci benn mbir maanaam soññ la la ngir ëllëg nga gën a mën a liggéey ba déwén bu ñu la fi àndee nga bokk ci type de l'année wala artiste de l'année yi te loolu mooy sunu mébét ndax nag Grand Yoff ñëpp ñu ngi sunu ginnaaw macha allah te liggéey bu am solo bi ñu liggéey tey moo tax ñu boole ñu ci lu mel nii waaye sant yàlla rek di la wax ne li ci kanam raw li bët ndax ay bi ci sunuy loxo lay mujj ndax grand yi fi nekk bu ñoom bu ñu fi jógee rek ñun ñoo koy def. di leen ñaanal nag ñoom it sunuy mag yi fi nekk. Mm-hmm. waaye kon musique bi moom ci xale yi lay mujj. Mm-hmm. kon nag gën a góorgóorlu. gën a liggéey mooy li ñu war saa su ne. Mm-hmm. waaw li nag ak soññ la ci ñun waaye di sant yàlla bu a baax. waaw kay bu ñu jógee ci lii si liñ jëm nag ak maanaam boo xam ne bu ñu bu ñu ba pare nag am na a a mënta ñàkk ñoo ko tàmmal Grand Yoff sax lam demee korité waaye nag ak projet single yu bees tàq-tàq. ndax nag mi ari. benn projet la boo xamante ne mbas mee ñu téye woon. waaye ñu ngi ci it incha allah. yaakaar naa ne bu koor gi jeexee incha allah rek single boobu it mu ngi ñëw ndax nag li ñuy wax fi mu toll nii toogaay amatul. waaw liggéey rek moo ñu war ndax ay xale lañ. te dama bokk ci musique bi te nag dañ cee war a jël lu ñu moom si. di ñaan yàlla yàlla def ñëpp jàmm. kontaan naa. mu génne liki liki lam faay boobu léegi Sénégalais yi dégguñu ko dim xaar ñu ngi lay waaw ñoo lay fay bu baax ñoo lay delloo si mhm. euh, Dimxa ñu ñëw ci guddi gi nga xamante ni moom lañ jagleel artistes yi yi présentateurs yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay révélation de l'année Dimxa ñu fekk la ci bés bi lan moo waral teewaay bi. waaw dëgg neexul danoo génne loo xam ne moom la xale yi bëgg muy Liki Liki Lamfaaya. Mhm. gars yi jël suñu numéro woo ñu xam nga rek. Mhm. daal di wax ak ñun. daañuy woo fii moo xam ni muy laay. wër. dëgg neexul mu ñëw nag ñu am ci mbégte trop te ñu ngi ñaan yàlla may ñu ci ndam. Mhm. Mhm. Euh, ce que Dimkha pare na pour euh, delloo buum ca mboy mboy comme na mu ko defee woon. maa nga ca ba léegi. dama mhm. dama bëgg rek ba kii affaire yi dal. Euh, waxal bu baax ngay layam layam <laughs> ba koor gi jeex. ma ñëw. incha allah ngi ci yoon bi daal. ñooy ñëw yàlla baax. lan ngay wax fan si ak xarit yeeg am di jàmm yi. waaw di wax fan si nag ñu jàpp ñu baax. te xam ne ñoom ñoom lañ am. dëgg neexul ñu nuy waa Louga nag bu baax. ñi nga xam ne ñoo ñu bëgg trop. te bëgg naa daal yàlla may ñu ndam bi ñu dem Louga féetee ko fa. dëgg neexul ba ñu yëgee nga am. ah ba ñu si ba ñu yëgee nga si am. non yëgee bi ma si am sax xaw ma ko seet ba ma ko waxee dama tiit. Mm. ndax Louga kenn musa am lii. ñu rek ñoo ko si am. te ñu si ñaan yàlla ñu am si ndam. dëgg neexul amit ñu dem tey jii nii ñu ràññee la ci say morom ne la yow da nga bokk ci catégorie révélation donc ça fait plaisir ma gagné ko Amira gagné ko pour man lépp benn la quoi c'est le Sénégal qui gañ ndam ni génnul Sénégal donc ñun ñëpp ñoo far quoi ça fait plaisir. dañ la ko waaye yombul ah donc di leen wax que ni maa ngi ci chaque jour maa ngi ci liggéey bi mu suñu bàyyi comprendre nga. tout le temps affaire day gën a kawe am nañ ay vision yu mag am ambition yu mag mooy yamul Sénégal kese mooy yóbbu musique sénégalaise fu kawe moo xam mu dem Afrique romb Afrique dem ci monde bi yëpp donc loolu mooy objectif bi voilà na gars yi xaar affaire. mën nga ñu wax ci projet yi. projet mi ngi ñëw nañ xaar clip yi nañ xaar projet yi. nañ xaar concert yi album pourquoi pas donc loolu yëpp liggéey la rek donc euh, bu ñëwee rek incha allah bu jotee yomb quoi ñu ngi ci liggéey bi. maa ngi lay fay ku baax. sama tur bi Momo tey ban liggéey ngeen am ci li nga xamante ne tey ñu indi leen si ngeen bokk ci li nga xam ne mooy Raaya Musique bi mooy seen première édition di seen première année pour ngeen bokk ci Raaya Musique tey ban liggéey nga ci am. bon maa ngi nuyu ñëpp. di la nuyu yow mii. Mm-hmm. di nuyu waa yéeg yëg bi ñu am nag ci ñëw fii nga xamante ni mooy musée bi pour Real Music Awards bi euh, contentement la si ñun contentement la parce que c'est pas donné à tout le monde. c'est pas donné à tout le monde parce que suñuy morom rek ñoo fa ne. suñuy mag suñuy papa. Mhm. ñoo xamante ne ni tey bëggoon nañu bokk ci lii. waaye mhm. yàlla ak dogalam. ni ñu koy waxee jaam ak pexeem noonu la demee loolu daal mooy mbégte bi si tey boo xamante tey seen grand yi dañu jiitu musique ñu ngi fi ñoo xamante ne tey ñu bare bare et cetera yeneen événement yoo tey ñu ngi tey si affaire dëgg la am na ñoo xamante ne ni euh, wooy nañ ba bàyyi wooyu ñëwuñu fi ñëw surtout ñun nag dañuy dooree tàmbali yàlla defal ñu tawféex ñu agsi fii donc loolu ñu ngi ko koy sante bu baax a baax a baax waaw di wax ne nag gaa ñi jommul kenn mm-hmm. kenn ku fi ne mën nga ñëw jommul kenn liggéey rek waaw waaw moom solo tey loolu fan si te ak lan la ñu mën a war a xaar ak telmaan yi bon fan si nag man li ma leen di wax d'abord mooy que mm-hmm. encore une fois gàcce ngaalama ñoom parce que olof Ndiaye day faral di wax naan dooley jën ndox la waaye ku ne xam na ni dooley waykat bi public bi la bu du woon ak ñoom tey mën naa ne du mu yegg si fii ndax ñooñuy suivre ci net bi dañu dooleel vue di dem ay millions de vues donc ñooñu amuñu seen fay di leen wax na nag ñu ngi waajal yu doy yoo xamante ni ñu ngi ñëw. jërëjëf wàllum taw feex. ni ko yi. wàllum taw. ah tey ak kontaan de day waat ci li nga ñu xool année bi passée am na lu ko gàllankoor mbas mm-hmm. bi fi jàll. Mm-hmm. tey ñu ñëwaat tey fi nga xam ne tey moom fii ñu ak ban liggéey ak ban doxalin ci a mooy déjà rek sant Serigne Saliou Serigne Béthio mm-hmm. ndax tey lii yëpp moom a ndax moom ko waxoon bu yàgg donc mbégte bu mu ci am tamit di sant samay waajur tamit bu baax ndax euh, lépp tamit moom la ndaxte comme ni ko waxee rek du ñun ñoo dàq way déedéet waaye taw nañ ko ci rek kon foog ñu wanee tamit ñu ngi ko désigné am yan la ñuy def pour pour mën mu neex senegal ndax daf ñu mbalax def ñu rap daf ñu dara waaw world music la def waaw boo xamante ni da mën a touché ñëpp ci bàyyi xel lépp léegi buñ ci léegi buñ ko joué léegi. Ah, tey ah, ban conseil nga am ci li nga xam te mooy yéen seen artistes yi actuellement ñu bari te bu ñu ñu sélectionné si li nga xam ne moom raay si musique ba bàyyi musique mosu ñoo dégg loolu tey am profil yi dañ nekk ay jeunes tey ñu sélectionné ngeen bokk ci tey. waaw lu may conseil rek mooy déjà ñu gën a liggéey rek ku ci ne tàmbalee ci man ñu gën a liggéey ñu ñëpp te tamit nañu yéenante jàmm. jàmm boo ko yéenee sa morom rek xëy na tawfeex bi dina ba sa koy lal xam naa ci dara kon li may gën a yéen li may gën a wax rek musique bu ay xeex musique bëtt la waaw musique da ngay am xol bu set nga ko def xol bu set boobu mooy tax que day jugg si xol tàbbi ci xol loolu loolu laa laa xam ne mën naa ko conseillé waaw musique moo coow la non man dama contre loolu man bëgg na di jàpp ne musique dafa war am coow ndax musique foo la la te da gis góor yàlla yow ku mel ni yow mu bégal la lan nga ko bégal mu jeune la ko bégal la ko wayal la ko kon daa war a def mbégtey bégle donc man dama contre ñi di def ay guerre wala ñu def ay guerre ndax fu man loolu amul sens quoi. tey euh, euh, ban message ngay lancé bi nga xam ne tey mooy euh, jeune Sénégal ñun ñu tey bari xel jàll na fi lu bari bari am na fi tamit tey ban message ngay lancé jeunes yi jeunes yi ban message nga leen lancé. waaw maa ngi doon dégg lépp bu ma nekkee lool. waaw maa ngi doon dégg gars yi doon xeex yi yenn quoi pour man de xëy na peut-être man est-ce que du supporter yi wala fans yi laa wax du ma doon supporter waaye fans yi ci boppam est-ce que ñoom ñooy guerre entre ñoom parce que je pense que gars yi ci boppam ñuy saa yi ci boppam bu doon rek comprendre li nga xam ne doo gérer ndaxte yow da ngaa jublu rek pour kontaan yow gars yi kon tax nga war a mën a gérer dégg nga man li ma la lu kenn xam naa lépp doon benn keneen mën na bëggal a a ay projet waaw suñu projet mooy bii di waaj a génn mooy sama album bi maa ngi profité di waa Londres lépp waaw sama chef bu baax la nga xam ni ak sama manager yu fii ci Sénégal tamit ma di bàcc sàmm ndaw ak euh, ak Mor Dóor ñuy mooy World laal laal dëkk bépp ñoo jëmee ko jaam ñu fii Sénégal loolu la man sant am si musique Sénégal. gaa ay jàmbaar lañ wax dëgg yàlla ay jàmbaar waaw gis naa avancement bu waaw man gëm naa ne bu ñu ba mbir yi parce que ñoom commencé nañu comprendre di def world music ndax avant mbalax kese mënut jox yëf yi dara mais gars yi gis ko jaay extérieur parce que extérieur loolu dafay loolu ci euh, nga ñëw ci li nga xamante ne tey mooy waaye musique ah tey gisee tey waaw di ko rafetlu xam nga mbiri Sénégal tey bu ñu demee ba doomi Sénégal nar a récompenser doomi Sénégal faaw ñu teew te ñun dañ nekk ci aar bi di liggéey ñun ñu gis suñu liggéey di ko topp ñu am tamit famille bu yaatoo yaatu boo xam ne euh, ñu ngi def suivi ci mbir mi kon tey bu rayaa amee waa Sénégal xew la ko faaw ñu teew waaw ñu ci kontaan lool. tey noo gisee mu jógu Sénégal actuellement nii. waaw musique baa ngi évoluer ñu ngi gën a am ouverture xam nga bu njëkkaan ñu ngi daan am tuuti problème di proposer mais tey na ouverture boo xamante ne nit ñi sawar nañ ci di am ay nouveauté sawar nañ ci di am ay yeneen i style ils sont beaucoup plus ouverts kon dañ ciy sant yàlla rek. dem nga ne actuellement musique bi fii ak 2022 wala bu la jëm jéggi frontière ba dem yeneen Europe di ko di ko représenté. mais bien sûr xam nga tey Afrique mooy maanaam richesse bi taxaw ñun africains yi ñun maanaam ñi ñu bàyyi xel léegi dafa bëri ndax suñu culture dafa riche li ñu am dafa riche suñuy aada suñuy lépp ñu jël ko daal di ko mélodie def ko ci musique boo xamante ne ñëpp ñuy déggandoo kon faaw mu am lu mu def. est-ce que musique a yem ci mbalax kese. non musique boo nee musique parce que déjà instrument yi la wër mun nañ la tëggal lu ne donc euh, du yem ci mbalax rek euh, raison pour laquelle ñun tey jeunes yi ñu sawar ci pour di am yeneen li ñuy proposé te itam suñuy mag dañu ci taxaw donc ñu ci sant yàlla bu baax. actuellement si la nga war mën a xaaral. waaw ñu ngi préparé wu daal ñu ngi préparé wu ñu ngi ñëw. te vraiment dinañ jox nit ñu soxla vraiment li ñu bëgg a dégg li ñuy apprécier beaucoup plus d'ouverture beaucoup plus de diversité. que waaw dinaa ñëw incha allah bu soobee yàlla dinaa ñëw bu gaaw a gaaw allah merci beaucoup merci. maa ngi lay ñu gisee ko <laughs> waaw kay waaw kay xam nañu mbas maa ngi fi te nii <laughs> ah, maa di tur Kenobi. Toulouse Toulouse ah, tey ah, bii mooy seen première année ngeen bokk si li nga xam raaya musique. si si effectivement. donc hmm. fan ngeen représenté. ñun euh, ñu ngi bokk ci catégorie meilleure révélation de l'année ñuy groupe Signal. Hmm. ok ah, tey jii bu gisee ki nga xam ne mooy man ko Rouge moo leen indi tey moom monsieur Mélenchon mooy coach bi. waaw <laughs> oh, mamie c'est une grande sœur pour nous une maman donc voilà moom mu ngi fi. c'est on besoin donc voilà moom. voilà elle supporte quoi. dëgg la euh, am ci li nga xamante ne mooy waaye musique ñu boole leen ci tey euh, ban yëg ngeen ci am parce que boo xoolee fii euh, bëri na artistes yoo xamante ne yàgg nañ ci musique mos ñoo am li nga xamante ne mooy trophée bi tey yéen nag en nga ci am. waaw kontaan rek kontaan ça fait vraiment plaisir bi ñu génnee yàggul mm-hmm. mais. Euh, ça se voit que li ñu def euh, liggéey nañu quoi. ça se voit que liggéey nañu parce que Raya Awa c'est pas c'est pas du n'importe quoi. Oui. donc ku ci bokk rek dafa fekk ni liggéey donc ça fait vraiment plaisir kontaan rek lañ ci def. actuellement léegi bientôt si la ñu war mën a xaar ci li nga xamante ne mooy si projet yi ak yenn événements yi pour pour pour pour waaw ci lu bëri rek. dañuy def ay surprise donc di wax ñu xaar ci lépp dinañ ñëw incha allah concert ci ay clip ci ay son ci album lépp incha allah. incha allah. groupe bi tey yéen ñaata ngeen ñu ànd. ñun ñett la ñun ñett yi. man la Siñaax Kaar. Siñaax G ñaaña. Amita Siñaax A. ok yéen a famille yéen. waaw gis nga. macha allah on est des sœurs. ok merci. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. comme li ma laaj sa mbokk comme li ma laaj sa kii bi rek laa laaj ak yi nga xamante ne tey ah, ban sentiment ngeen am ci li nga xamante ne ñu sélectionné leen ci Royal Music bëri na ay artistes yoo xamante ne jaar na ci musique Sénégal mu suñu seen mbokk tey ngeen nekk ay jeunes nekk xale ñu ñu sélectionné si ban sentiment nga am. waaw déjà man je me dis que c'est un honneur parce que comme ni nga ko waxee sànq kii kii Signar Cap c'est pas évident ngay doog a door ñu sélectionné la ci Royal Music Awards donc c'est quelque chose qui nous a vraiment touché qui nous a fait plaisir neexal na suñu xol et li ñu motivé la tamit plus vraiment. ak match lan lañ war lan lañ war a mën a xaar ay surprise ëllëg ci yi war a génn. waaw si naan nañ ko xaar que soo xoolee ñett ñi nga xam te ne ku nekk ak univers am donc nañ ko xaar ci lu bëri parce que 2021 bi moom avant ñu si génn mu baax. waaw parce que def culture quoi vaccin yi nii am nga mun naa gis <laughs> te ku déglu Signar xam ni africain la ku dégg si dégg Signar sa xel dem ci Sénégal dem ci Gorée Rufisque donc pourquoi pas ñu. li nga xamante ni ñoo ko moom ñu koy ñu ñu koy valoriser que ñu jël leneen loo xamante ni kenn moo ko moom. wala man couche bi la conseil lii. waaw moom it couche tamit xam nga mag la moom donc moom mooy def yooyu daal. <laughs> <laughs> lii daal man si lii daal laaj kii bi man lii yëre olof bi tey man ngeen indi tri traditionnel xam nga muy ngeen première fois ngeen bokk ci li nga xam ne mooy raay musique ban sentiment nga ci am. waaw incha allah bu wéy tey dinañ ci àndal euh, kontaan na si le fait que ñëw fi fekk suñu morom apprécié yëpp. ak comment si yàlla ngeen mën a xaar. ah ci lu bëri ah ñu ngi préparé lu bëri sax. Euh, ban sentiment nga ci am actuellement ak ni muy doxee. waaw ça va